je pense que jamais un homme politique n'a montré autant de dignité quand même ci épreuve parce que euh, ñun nag suñuy at barewul mais quand même ñu gëstu di lire Abdoulaye Wade def na fi grève de la faim moom ñoom Dansokho ak ñeneen Karim Wade sax def na ko xëy na yàggul. kan Karim ah, waaw parce que Karim Wade bi mu gëmee justice euh, taxaw avec ses avocats parce que fort de ses arguments et de ses preuves parce que xamoon nañu li ñu ko toppee. du amul mu jël ay ay avocat am dem au procès c'est c'est défendu pendant plusieurs mois plus de cinq mois euh, dernière bi ñuy mujjee ci moom dañu ko brutaliser bu ko forcer mu ñëw wuy ji Antoine Diome mi moo nekkoon euh, procureur bi à l'époque procureur euh, procureur euh, euh, adjoint adjoint moo nekkoon avec Alioune ndaw jàkkaarloo ak Ousmane Sonko obliger les gardes pénitentiaires nañ ko indi de force à la barre ñu violenter ko brutaliser ko ba damm tànkam. damm tànkam waaw loolu fii la ñu fekk waa PDS ñu ngi may déglu. Karim Wade keroog ñu bari jooy nañ non dañ ne gaañ nañ ko. dañu damm tànkam parce que bi muy ñëw mu ngi ñëw ak plâtre xam nga man dama respecter tuuti quand même ñi nga xam ne ñoo nekk ay pénitencier ay ñooñu parce que ñooñu je considère que seen liggéey lañuy def. Karim dañu ko dam keroog biir ci procès bi dañu évacuer salle bi li may wax nii waa PDS ñu ngi may dégg après dafa entamer une grève de la faim parce que après il avait jeexaloon na bépp recours bu mu amoon entre ses mooy bu may xeex ak justice damay jël avocat indi samay preuve mais loolu yëpp dañ ma ko bañal ba pare jaay ma doole ba pare gaañ ma donc mu def grève de la faim keroog nag sëriñam moo yónnee ci moom. mais bi mu demee ñu yóbbu ko hôpital ba plâtré ko mais dañ ko delloo prison bi ñu ko delloo prison mais comme damm la mu ngi waroon toute sa faculté bi ko sëriñam yónnee mbiskit mu do mu arrêté grève de la faim. ni ko papaam defee woon. moo tax ma ne la état moo tax